Mm. léegi dam fu mel ne site quotidien laay ubbee ni ñu ko baaxoo defee. tey nag euh, dimbali ma rek wax ko ci français nag waaye li yomb na. bon yomb na. mais dafa am ñoom dañ may xaar. <laughs> te wolof fi ñuy wax ne kuy tëru. <laughs> kuy teggee kuy teggee ci ay. moo tax toujours bu ma nee jëy Sud FM bi. waaw dañuy daal defaruwaat. site quotidien bi. waaw voilà site quotidien bi. waaw mais dama ko naan jëyi bañ gis ko man leen une fois n'est pas coutume. oui dire xaaji oustaz SMS <laughs> Maodo lu gars yi wax. ah lii rek lii ba léegi lii gars yi dañ koy bind dañ cee sonn fanaan ci lu ne daj nañ ko ci <laughs> ñoom caam lu ne daj nañ ko ci waxal li gars yi wax voilà ay tey léegi bon bu fekkente ne bëggoon naa ko wax ci tubaab dama naan aujourd'hui li nga xam ne moo nekk en fait en réalité à la mm-hmm. une de Sud Quotidien 18 mm-hmm. millions 126 mille 390 habitants en 2023 5 35 pour 35 virgule 8 pour cent des jeunes 207 mille 791 étrangers quadruplement de la population en 50 ans donc lii mooy lan. non ba mu tegee nag damay ah. continuer le Sénégal en chiffre moom la def gros titre le Sénégal hmm. en chiffre léegi nag lii détails yi la woon ci le Sénégal en chiffre li ma bëgg a wax ci wolof mooy Sénégal fi ñu toll nii tembe 2023 bi recensement bi ñu defoon ba xam askan bi naka la toll Sud Quotidien nee na ñu ngi toll ci fukki million hmm. ak juróom-ñett yu toftalu téeméeri junni ak ñaar fukk ak juróom-benn yu toftalu fanweer ak juróom-ñeent Ah. ni nga ko ni nga ko waxee ni ah. beneen affaire la. waaw ah. dix huit millions cent vingt six mille trois cent quatre vingt dix ak juróom-ñeent fois. loolu moom nga tekki ci wolof. waaw loolu laa wax ci wolof léegi nii. loolu ci at mi génn. Mhm. Sénégal fi ñu toll foofu lañ toll yemu fa mhm. boo xaymaa loolu càmbar ko wëlbati ñi li ciy ndaw ci lim bi ma wax lii. sur nee na fanweer yi ak juróom ak lu toppan yëpp ay gone lañ. 35 virgule 8 pour cent de jeunes. Mhm. moo composé wu ci 18 millions yi ma wax léegi 126 mille 390. léegi nag ñi nga xam ne ay doxandéem lañ nekk ci réew mii te fekku nu fi baax mbaa baax fekku leen fi dañ fay ñëw rek di wut lu nu am loole ñu ngi toll ci deux cent sept mille sept cent quatre vingt onze étrangers hmm. mari ñaar téeméeri junni hmm. ak juróom-ñaar yu toftalu juróom-ñaari téeméer ak juróom-ñeent fukk ak benn ci ay doxandéem ñoo nekk ci biir Sénégal hmm. waaw léegi nag sur compte ci texte bi bon dans la phrase par exemple mu ne quadruplement quadruplement en France ci wolof mooy suñu ko fulee ba ñeenti yoon quadruplé mooy nga def ko quatre fois mhm. mu ne population Sénégal feeg cinquante ans dix huit millions yi dañ ko bay bu ngeen multiplier ko par quatre pour xam mhm. nañu war a toll d'accord feeg cinquante ans mhm. askanu Sénégal danañ multiplier wu ñeenti yoon. quadruplement en euh, de de la population en en cinquante ans. cinquante ans waaw loolu. maanaam ci cinquante ans yi lii lii lii nga baal ma lii lii moo ci lii moo ci multiplier loolu lañ bëgg a wax waaw. kon mooy tax ma fekk ma xaw a. maanaam population Sénégal multiplier déedéet déglu damaa juum multiplier wu nag quatre fois en cinquante ans. Hmm. maanaam ni ñu toll nii. waaw ñeentam la ñu doon. waaw waaw déedéet waxuma loolu de damaa juum ci wax bi ah. dama ne. maanaam buñ delloo juróom fukki at ci ginnaaw. yokk nañ fi ñeenti yoon. voilà c'est-à-dire que quadruplement de la population en ah. cinquante ans. waaw ah. maanaam cinq ci cinquante ans yi multiplier wu nañ fi quatre fois. Hmm. loolu laa loolu laa bëgg a wax. dama def lapsus quoi. mi ngi tolloo nooy na lapsus nag indi na fi coow lu ne. non kooku lapsus lapsus moomu <laughs> yàgg na alors donc c'est la une c'est la une de Sud Quotidien aujourd'hui mm-hmm. ils ont parlé également bon des épreuves du second tour mm-hmm. ce mercredi bac 2024 là c'est au niveau des élèves de la classe de terminale aujourd'hui ñoom ñooy démarrer deuxième tour bi maanaam d'accord ñi nga xam ne at woon nañ ñëw ci bu njëkk bi parce que lii intéressé na ma trop mm. noo jàngatee euh, chiffres yi dégg naa léegi euh, Sénégal góor ñi ñoo ëpp jigéen ñi waaw te bu njëkk dañ xam jigéen ñi dañoo bari di yéen sax ngeen naan góor gu ne war naa mën a am ñeenti soxna te ñu des fi nangam nangam lan moo lan moo lan moo indi changement boobu ba ba ba ñii ci seen recensement yi ñu wax ne euh, population bi euh, maanaam góor ñi ñoo gën a bari jigéen ñi. waaw xam nga ñaar bu ñu dajee ñaari ñaari wax bu juddoo. Mbàkke ak tu mm. mën a doon ak xam-xam bu mën a doon ci àddina. Mm. teel li ma lay bëgg a wax. ñaari wax bu ñu jugee bu ñu jugee ba ñaari wax yépp ñëw. Mm-hmm. ki mbir mi natt ne lii ak ki toog na lii lañu am jëlal ki jàng mbir mi nii la am hmm. ñaar ñaari wax bu ñëwee ki jàngi woon mbir mi waaw ba am ci li jaase dem wër ba ñëw daan ne la lii ne hmm. ak ki daan ne yaakaar naa ne lii fi ne hmm. jëlal ki jàngi woon wëri ba ñëw natt andil la maanaam li ñu wër ba indi waaw bay bon ñu jàpp lool waaw nañ jàpp lool parce que ki toog wax moom amul sukkandiku d'accord loolu mooy li ñu indi léegi ñun bu ñu ko bëggee commenter bëggee bëggee waxtaan parce ni lii dafa am solo ci am réew ah bon euh, suñu candidat bee jotul woon a Euh, mas nañoo dégg ci ay waxam mu doon euh, wax ci wàllu recensement yi di wone ay ay gox yoo xamante ne population bi ni mu ni mu gën a màggee ni mu gën a sëne ni mu gën a nàngame wane ne état war naa gën a bàyyi xel foofu ci ay doxalin yooyu li ma bëgg a wax rek mooy wane ne recensement yi du lu euh, du lu ñàkk solo ah déedéet déedéet déedéet mooy doxal am réew lu am solo la ndax voilà ndax mooy tax ñu xam ñu mën a xam li ñuy natt ak ni ñu koy natteeg fi ñu ko ni mbir yi tëddee waaye nag dafa am yoo xam ne détails yoo xam ne itam day soxal askan wi mën naa mu ñun ñu bokk ci mooy léeg-léeg ñu naan góor ñee ëpp jigéen ñee ëpp nangam nangam yooyu noo koy jàngate par fukki at lañ koy def pour wax la njëriñam. Hmm, par fukki at waaw yu nekk 73 defoon nañ ko 83 defoon nañ ko ah donc 93 defoon nañ ko 2023 defoon nañ ko. Hmm. maanaam fukki at yu ne. waaw dañuy xayma dañuy dañuy xayma diggante fukki at yooyu ñaataa fi gën ñaataa fi gane àddina. Hmm. ñaata at nangam population bi fan la lëng jëm fan la lëng jëm mooy jeunesse bi moo ëpp wala mag ñi ñoo ëpp kon xëy na bañ mujjee def euh, booba jigéen ñi dañoo ëppoon góor ñi no booba nag jàpp ma ne peut-être mën naa nekk itam mhm. loolu mën naa ne ndax fukki at yàlla lu ne xaj na ci mhm. mais daal lii nga xam ne moom tiim nañ ko wax ko mooy recensement day tax nga xam yow exactement sur le plan économie réew mi nan lañ ko war a gérer mhm. nga xam tamit tey jii sa réew ñaata même sur le plan da nga xam ba xam ndaw ñi temps ak temps ak temps fekk année nangam ak nangam da am ay mm. projection maanaam da ngay am loo xam ëllëg en fonction ci ni nga yoree réew nga basé wu ci wàllu recensement Sénégal fi mu toll mm. xam sam réew ñaata étranger moo fa nekk lu am solo la dëgg la bokk na ci li lay jox sécurité bokk na ci li lay jox def réew mu nekk nga xam ba ban alaaxa nga séq ak moom mm-hmm. tey ji suma ma toogoon yàgg ma ne

région de xam naa ne ci la bokk di waaw ayca mais day ko tudd waaw Diourbel bokk waaw voilà jërëjëf wala Njaareem bëgg naa <laughs> doxalal <laughs> département Mbacké waaw pourtant ci département bi ëpp ay doomu aadama la bokk mhm. mais département bi gën a pauvre ci Sénégal ci la bokk itam mhm. gis nga paradoxe boobu li ñuy wax ah, paradoxe ci arab mooy al aqs Mm-hmm. waaw safaan. mooy safaan waaw contraire bi. Mm-hmm. département bi gën a peuplé. Mm-hmm. mooy bokk na ci départ boo xam ne moo gën a peuplé bokk na ci gën a ñàkk. dëgg la te jaaykat yaa nga fa ndaw ñaa nga fa. borom boutique nga fa nangam ak nangam yooyu état bi da ci bàyyi xel. dëgg la seet ba xam foofu lan la fay def moo tax ñu war ñoo bàyyi xel nag. ah bàyyi na leen xel. parce que xam nga bu ñu tudd département Mbacke wala ñu tudd région de Diourbel Touba moo tax c'est-à-dire boo demee Touba maanaam ci wàllu population. loolu laa bëgg a wax rek. non mais xam nga euh, yow man yow man kay déet man kay waxoon la ko fi. nee la njaareem gi yëpp bu doon Touba kenn tuddatu ah, ah, kenn bu ko ko fagotiser. xam nga fag lu ñu. waaw waaw loolu la mais ba tey loolu sensu njaareem la rek ndax itam a <laughs> <coughs> <laughs> war a baax a baax. bu baax a baax départ bu bàyyi leen fa tàgg. <laughs> aywa jële aywa jële <laughs> moo ne ñun ñëpp moo ñu fa indi de. waaw boo leen fa indi dem fa fa nga xam ne moom moo ko sancal boppam. <laughs> baax na. dem nekk Touba léegi nag barkeb sëñ Touba bi dem Touba moo tax léegi fi ñu doon nii njaare mi ngi ne wéyang. wéyang dafa bi ne leen góor ñi lu ñu faatu. waaw léegi nag ñoo ëpp lu ñu. ëpp lu ñu faatu. waaw loolu moom loolu moom sax Sénégal gépp monde bi la en général waaw lu tax ñun ñuy gën a faatu nag ñu nit non xam nga xam nga dafa bari ay facteurs yu koy yu koy yu koy mm-hmm. expliquer ah facteurs yu bëree bëri d' abord il y a boo mm-hmm. xoolee geer yi tey guerre moom gëj na am mais ah, rébellion bi geer la di Sénégal gii non waxuma waxuma ci Sénégal. mais mais recensement bi Sénégal lay wax. waaw mais dafa nag damay ñëw foofu laa jëm ci Sénégal laa jëm dama la wax dama laa jox dama la bëgg a jox ah, bi. li li muy demee boo ko du déglu <laughs> ay ci dëgg la kay. même Sénégal bu nekkul ci guerre. Mm. <coughs> ci ci misaal am na fi lu fiy xew. Mm. loo xam ne lii mu ngi xew ci bët mu réew mi ay at. Mm. daanaka ëpp na ñaar fukki at yàlla. Mm-hmm. boo seetlee ña fa doon dem ay nekk ci l'armée bi. dëgg la armée am na ay jigéen yu ci nekk mm-hmm. mais ñi daanu ci xeer bi xeex bi yëpp boo seetloo nañ dawalal sa xel rek mm-hmm. waaw te loolu ci réew mi la xewee mm-hmm. ak yeneen opération yi nga xam ne góor ñi dañ koy def ci moo xam armée la wala gendarmerie wala yu demee noonu même bu dee waaw centre Afrique bu police police Sénégal ma nga fa woon ci fële nga xam ne Bokassa moo ko jiite woon à l'époque xam nga centre Afrique bu baax très bien seen premier nekkaat président mais loolu benn affaire la léegi euh, loolu dafay am ci góor ñi beneen bi ci tegu tamit mooy activités yi quotidiennes yi ñuy def góor ñi coono yi nekk ci ñoom. Mm, ci fëgg-fëgg bi stress bi ak yu demee noonu. souvent dafa waaw def ci dafay am lu muy dafa am lu muy def ci yaramu nit. góor ñaa ngi nii Pape Laye eh, ah, soo gisee tamit. ñu ne wéret ma yërëm leen ba waaw gis nga boo gisee tamit par exemple. mbëkk mi gars yi nee nañ ñoo ëpp lu ñu faatu ñu. xoolal mbëkk mi rek jëlal jëlal mbëkk mi Sénégal barki démb am na ñaata ñaata ñaata ndaw ñoo faatu plus de cent personnes. tey jii boo doon xayma ñi faatu ci mbëkk mi yëpp nga teg góor ñi ne teg góor ñi ne matuñu leen asaka ci dugg ñi dugg ci gaal yi rek laa wax xam naa ne boo boo boo wàññee ñaar fukki góor benn jigéen ngi am wala ñaar mm. donc yooyu itam beneen facteur la bu bees sax bu ñëw ajouté bu rajouté waat yokk yokk waat ci affaire bi mm. mu nekk beneen élément